climat bi ak euh, Oumy Samb maa ngi lay nuyu laa noo fanaanee mbaa jàmm nga am. <laughs> alhamdulilah bonjour à la team bonjour Cheikh Tidiane Malick nuyu naa leen ñëpp Mor Chérif. et bonjour à nos chers téléspectateurs et les leen on y donc euh, pour le climat commencé jant bi puisque bi mu fenkee euh, taxu koo yàgg noonu c'était à 7h22 18h38 mu làqu rek ba ëllëg ni koy defee saa daal di euh, xool euh, l'atmosphère de ce matin donc un ciel bien dégagé xaw a oyof lay doon Euh, ci yenn gox-goxaan yi sur la totalité du territoire même on va dire ñu jàngee carte bi rek et puis gis ni que ngelaw bi tamit ñu ngi desandi ba tey euh, au niveau national mais fu mu a takkoo rek ce sera sur les régions euh, côtières maanaam yi dëkk ci boori géej gi rek Pierre baa bu baax a baax au niveau des températures donc ce matin 19 degrés seront les températures minimales diggante Kolda Sédhiou Kaffrine Louga Bargny-Thiès 20 degrés en remontant pour euh, Saint-Louis degrés pour Diourbel degrés température maximale euh, qui sera enregistrée à Dakar passons maintenant à l'après-midi jant bu un soleil dominant sur la quasi-totalité du territoire avec quelques nuages qui n'auront aucune conséquence sur l'atmosphère euh, diggante Tambacounda Kaffrine Diourbel Saint-Louis fu euh, mel ni Louga Thiès wala Dakar voie nuageux ba moom euh, dina fa teew incha allah et puis voilà tent bu fës mu ngi nii ngeen gis amul benn niir boo xamante ne dina ko déranger sur les parties sur les régions sud du moins extrême sud du pays et puis à l'est aussi boori Matam mu ngi noonu amul benn jafe-jafe fi mu toll nii excepté ngelaw bi di desandi ak ñun mais ça nous fait du bien rapport qui nous rapporte également. Euh, de la fraîcheur bu ñu seetloo ci biti naata. Mhm. Euh, jaaykat yi fëgg jaay yi bali wàcc nañ. Mhm. su ma commence yére sedd yi. merci blouson yi euh, mën na ma rey. Mm, Cheikh Chérif li ne ko. bu leen fàtte dem tey. les <laughs> gants ay bonnet lu <laughs> ne ngay gis c'est incroyable. mi ngi noonu ngelaw bi desandi ba tey si géej gi euh, donc euh, nappkat yi ngeen bàyyi xel xibaar bi rek di ko topp xool fu mu fu uul bi euh, di toll donc concernant les marées 6h53 c'est la prochaine marée basse 17h21 en remontant marée haute et puis dernière marée basse 23h05 lañ ko nara nemmeeku mi ngi noonu ñu yemale ko fii ci page marée bi tey. Mhm. puisque wax nañ ci jant bi. Mhm. en ouvrant la météo ñu yemale ko fii rek bu ci kanam. Mhm. macha allah yàlla météo yeeg gants yi tamit mën nañoo jënd wala jaru ko. <laughs> <laughs> jërëjëf merci Oumy Samb ba si kanam ci météo bi un express ci ñaareelu pàcc bi léegi léegi dañuy jàll ci dëkkuwaay Tile Ndao.